voilà grand. dama bëgg mu wàcc taxaw normal après yéen bu leen neexee ngeen filmé ba doyoo day nuyu sama papa. Fall Fall. nuyoo bi ñu micro bi micro bi. may leen ko ma waaj. grand may leen ma waay. Ah. grand may leen ma waay. may leen ko mu waaj ba pare. Eh, taxawal taxawal. voilà. c'est c'est. non damaa bëgg mu nuyu sama ñoom papa. waaw yaa ngi baax. Thank you. ngir jëmi borom bi da ngeen ay ay ay ay waaw du ngeen égaré tuuti ba waa léegi waa léegi waa léegi may leen ko waaw ubbi foofu sama mag la ñoo bokk ndey c'est bon c'est bon waaw bu leen compréhension rek ngeen compréhension waaw may nañu espace ngir yàlla wuy ma sama xarit yàlla may nañu espace rek mais may nañu espace rek ñu dégg waaw si ginnaaw si ginnaaw waaw ah, waaw mais da ngeen di def nii digg bi nii da ngeen di def nii. waaw man yéen ñëpp ñu ngi koy ñëw. waaw ñu ngi ay ay ay ay. waaw man man man

لا اله الا الله جماي بابا بابا سبب بابا سبب جيبي سالي كومبي سبب كومبي سبب اندي بيرم بيرم كومبي بابا سينيغي دونك waaw day ñëwaat dañuy papaam quoi. doomu say bàjjen ca taar ba. doomu sa maam ji aji mari mbay ca ngoor ga. yal na nga gudd fan. yal na la yàlla may jàmm barkeel. mais xoolal ji reewaay. waaye nee nañ ko laf cet. waaye laf cet macha allah. dama yow ba kenn tudd.

papa am Modou Modou Mbaye mi ngi fi doon affaire yi doon envoyé. waaw gars yi gars yi doo leen ko dimbale ngir yàlla tuuti rek mu video, come on. That's video, video. Pull and bike, pull and bike. Pull and bike. Pull and Thank you. Bisa loh, bisa loh. waaw léegi nag nañ déglu nañ déglu tuuti rek kii sànni la ko ay kàddu Ababa ku tàmbali. xaaral man mooy. Abdourahmane da ngay jonkon da ngay jonkon bay tournage. da ngay déglu tuuti rek. may leen ñu tuuti ñu waxtaan lii dafa nekk lii dafa nekk wax dëgg yàlla booy booy booy bi yëre rek. seen naaru xaaru seen ak gànnaar xaal xam nga seen jaajëf bu yemee soo ko gisee ñu jot ñu laaj ko ko. te yaay daa seen sa kër baay ay moom ma xewee ne law naa. mais du naan te da ngeen jaay. xaar ñu pare xaar ñu pare. ay laata boobu. jur la fam la war a juree nag. dañuy dem yow. waaw ñun ñoo la jur. waaw d' accord ñoom ñii nii bu ko defee ñoom ñu sàcc ay kàddu après yéen doog leen jël papa bismillah jërëjëf yàlla na la jig nekk yàlla boole ci ceeb nga gañ kii sama rakk la mooy Mbaye Ngom mooy papa yi boos Ibrahima Ngom man ni yaay lii de neexatul bëgg a filmé ñu ne la doo filmé bu ñu paree bu ñu demee ca baas bi ñu leen neex léegi asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo leen di ziar di leen baal ak di leen balu ak di ñaan saa borom boo leen jéggal man nag bi ma ñëwee kontaan noonu naa waaye damaa gën a ndax ba ma fi ñëwee ba léegi wax ji ma fiy dégg wax ju neex la ju rafet yoo xamante ne bi ci waxu mbokk la ndax dama bëgg dama dégg ñu turu euh, répété bi turu Alaaji Maysa Sène plusieurs fois nit ku baax boo ko xamee lu yàgg nga ñëw ci famille xamoon ne famille ba nga ñëw ci ñooñu la bokk ku baax bañ tuddee la koñ boo mee ñaar télé boo nekkoon alaaji may si seen yóbbu la ca te loolu lu baax jëfam ju baax moo tax te man yàlla xam ma def ma xam leen xam naa aji kenn xam naa isa xañ naa paam seen maa de seen bii maa ko yàq kon nag suñu goro bii ñoo ngi koy jaajëfal ñoo ngi lay jaajëfal di ñaan sëy bi yàlla yàlla barkeel ndax ki la jël muy Ibra sama doom la sama jarbaat la yaay mooy sama ñetteel bi toxo Ibra Diaw Xaadim ak Soxna Mbay maa leen yar te it ba ma leen yaree ba tey aw ma dara lu ma ciy rëcc kon nag yéen yi nga xam ne yéen ay ngi leen di ne leen bu leen dara man dara ci jaaxle